Patrzyłem ktoś na nogi.
Ile?
Ten był pod moim podłogę.
وسنن Mhm.
وسنن الصلاة سنة julli ثمانية عشر fukk la ak benn waaw moom nag dafa boole baa ji dafa boole sunna julli yëpp euh, sunna farata yeeg yi nekk si biir julli farata yeeg yëpp la boole tax ثمانية عشر mais fekkee julli farata dong la ah te mooy julli juróom yi juróom-ñett sunna la juróom-ñett sunna dong la mooy siinaani siinaani kala jiimaani ta aani abdu sunni salaani loolu mooy julli sunna yi nga xamante ne moo nekk juróom juróom julli yi ah tënk la ma ngi ñëw ba appliqué mu ne mu ne farata siinaani kala jiimaani ta aani abdu sunni loolu mooy juróom-ñett sunna yi fekkee nag sunna yëpp nag yi nekk ci juróom julli yeeg ak yeneen yëpp sunna ay yeeg yooyu yëpp soo ko boole waaw fukk la ak juróom moom moom moom la def mu ne bi si njëkk xiraatu suwat bi mooy jàng saar aw maa wala loo xamante ni yaxuum day taxaw maqaamaxaa taxawaayu saar alal fatiha ci ginnaaw fatiha ndax ginnaaw ba nga jàng fatiha soo nekk nga jàng benn aaya rek di koor moo tax mu ne aw maa yaxuum maqaamaxaa waaw fi suba si julli suba ah ñaaraakaat suba yëpp day am xa day am day am saar wala jumaat ak juma juma tamit ñaaraakaat yëpp day am saar wala wala yi ak ñaari rakk ak ñaari një ñaaraakaat yu njëkk mi ne ay ma si lu si lu dul suba ak juma. ngeen julli dul dul suba ak juma nag. xamante yi ñaar la yi ñeenti raakaat la yi ñett ñaaraakaat yu njëkk yi mooy am saar moo tax mu ne wala wala yi ak ñaaraakaat yu njëkk mi ne ay ma si lu dul suba ah ak juma. min fawaa'idil a'yaan ci farata jëm yi farata jëm yi xam nga ko ci julli ak takkusaan timis ak gee asaaniyatu ñaareel ba ci sunna yi alqiyaamu mooy taxaw li daalika ñeel jàng saar googu saar googu nag soo ko jàng taxaw gi nga taxaw di ko jàng sunna la asaalisatu ñetteel ba aljahru mooy biral fil uulayn ci ñaar rakaa yu njëkk mel maghrib ci timis wala isha ak gee wa jumlatu subhi ak mboolem suba waaw ñaar rakaa yi ngay jàng yu njëkk yi ngay jàng ci gee ci suba ci fafula ci timis dañ koy biral ci kaw ngay wax biral gi koy biral la sunna la gee tamit ñaar rakaa yi ñi ngay njëkk a jàng ñi ngay ñi ngay njëkk a julli li mu fay jàng ni mu koy biral biral googu sunna la wa jumlatu subhi ak mboolem suba suba nag ñaar rakaa yëpp ñaar rakaa la ñaar rakaa yi ñu ngi ci biral waaw loolu mooy suba ak mboolem suba wa shafi ak shafa dañ koy biral witar dañ koy biral wala jumaatu jumaa dañ koy biral wala iiday ni ñaari iid yi te mooy tabaski koy tey julli julli julli julli ñu fay julli dañ koy biral wala nawaafil leen ak naafila guddi guddi tamit doo bëgg say naafila di ngay di ngay naafila nga biral ko te kay bëccëg nag nga nga nga nga yàllu ko wala istisqa ak mbaaw naan mooy su maral maral si amee julli aw ñu lun naan bu bekkoor ñu def istisqa julli ñaaraakaay ñaan yàlla mu wàccee fi taw ñaaraakaay ko mu day day béy na ci julli yi nag sunna la arrabiatu ñeenteel ba ci sunna yi ak istaar mooy yalu sima ada dalika yu si lu mooy lii julli yi mu la tuddal fii lu ko may rek dañ koy yalu lu may julli yi mu la tuddal rek dañ koy yalu wasiir mu ne ñu ne ko nag lan mooy siir mu ne wasiiru siiru yàllu maa mooy loo xamante ne loxo lépp ko dégg bi duñu si nopp yàllu mooy loo xamante ne kenn du ko dégg si nopp yow mi yow mi koy jàng donc yaa koy yaa koy dégg wala jëru biral duhur mooy safaan bi mooy contraire ba mu ne tan bii hun li ak yeete la mu ne law qara asiran fi mahallil jahri aw jahran fi mahallil sirri amdan aw sahwan al aaya wal aayatayni laa shay'a alayhi mu ne law qara'a si jàngoon sirran ci yàllu fi maxalli jëri si place biral su war a biral nga yàllu fa aw jëran wala biral jëmmeeral wala jëmmeeral fi maxalli sirri si place yàllu mooy mooy biral place boo xam ne ko war a yàllu nga nga jëmmeeral ko wax si kaw am den si tey aw sëxan wala si biral al aaya moo xam benn aaya la wala aayatan wala ñaar aaya la chey abi dara lañ di ko wax soo doon julli tisbaar nga xamante ni kaa war a jollu nga commencé biral commencé jàng fatiha jàng benn aay wala ñaar aay fàttaliku ko su baax mën nga continuer soo paree doo si jëm dara du la war waaye su ëppee ñaar aay nag jëm kaw bu baax da ngay si jóg dégg nga su ko ëppee da ngay si jóg moo tax mu ne al aay wal aayatayn laa shay alim amma ida qara daal lem jàng nag ak sa lu ëpp min aayatin si ñaar aay bu fekkee nag dangaa jàng ci fatiha lu ëpp ñaar aay jàng ba iyyaka nasta'in nga fàttali ku ne ah man de tisbaar laa nekk tisbaar dañ koy yellu kon boobaa wa tazakara nga fàttali qabla wadi'i yadayhi lu njëkk ngay teg si ñaar loxo ala rukbatihi si kaw bëti si kaw bëti woom boobaa day day baamu fatiha bi te da nga jàng fatiha yàllu ko biral ko ci julli boo xam ne ni ko waroon yàllu ah nga jàng suñu ëpp ñaar aaye soo ko fàttalikoo da ngay baamu fatiha bu fekkee ba nga koy fàttaliku nag fekk na rukkoo boobu bu fekkee da ngaa rukkoo pare nag kenn du jóge si ah ah kenn du jóge si si farata ah jël jël si waaw da ngay kon na julli gi annulé raka boobu ah soo fee ngeen benn raka ah ñu wàcce ko soo fee ngeen moo tax mu ne aada day baam umal quraan yi ndey alquran te mooy fatiha wa surat ak saaga yi mu ne wa in tazakkara nem fàtte nem fàttaliku na ko nag baada wadi yadihi ginnaaw teg ñaar loxoom ala rukbatihi si kaw bëti ñaar wóom kon laa yarjiu du dellu ndax li am naa aqdal rakaat naka fasu naka fasu ko rakaat inde ibnu qasim si ibnu qasim mi nga xamante ne taalibe imam malik la mu ne bi rafet rafet ji nekk la ci yëkkatiku bopp ne ruku yi bàyyi ko si ruku mu ne ndax fasu rakaat si ibnu qasim ibnu qasim mi nga xam taali taali taalibe imam malik la woon imam malik moo ko jàngal ba mu géeju ah ñi ñëwaat ci ginnaaw si si ginnaaw ñëpp moo leen jàngal moom nee na rakkaat bi fasoo soo siggee si record soo siggee si record la rakkaat bi fasoo waaw illaa fi masaay mi nag min minaas moom waaw min masaay minaas yi waaw am na yenn wax yu ñëw su di maa am na ñu ne rakkaat bi mujaradil inxinaa rek soo soo soo xasee ba lu ko rek rakkaat fasu na soo lu ko waaye rek moo même soo waxoon soo waxul dara lu ko waxee soo defee nii rek rakkaat bi fasul ku ñëw fekk la ku ñëw soo bu imaam bu imaam su la rawee soo ñëwee fekk foofu rakkaat boobu noonu la am na ñu wax loolu waaye nag Ibnu Qaasim moom moo la Maalik jàngal te boo ko xam mag la ñu bëri si moom lañ si lañ sukkandiku si masala bi mu ne fay naqadaha nem fas na ko bu wadi yadayhi si teg ñaari loxoom ala rukbatayhi si ñaari bët si kaw ba si ñaari ñaari bët woomam xaala wax na baaduhum lenn si ñoom ne la waaw waaw mu ne xaala wax na baaduhum lenn si fuqahaa yi law taraka su bàyyi woon aljahru bi la aamilin aji tey ko faqiila faqiila waxee seen yastaxfiru day jéglu allah yàlla taala bu koy mi wala shahida dar wala shahida dara alayhi bi wala shahida bi dara alayhi bi ko si wax waqiila amuñu ne tabturu day yàqu salaatuhu julleem ndax li anna hada naka li naka tey biral si place boo xam ne ko woon yalu wala nga tey yalu place boo xamante ne dañ ko- dañ ko doon biral loolu doydal julli ki la moo tax mu ne li anna hada naka li metta metta hawoon mi ngi bokk ci doydal bi sunna si bi bi sunna ni si sunna te doydal sunna nag soo koy def yàlla dina xiir nga doydal fa tey doo sa doo doo doy sa soo doydal fa tey moom si julli baaxul si julli baaxul yàlla ñu ba sama mu ne alxaamis juróomeel ba كما تهون ah
كما kama yatahawan comme ni muy doy dalee bil xëy man alxaamis la juróomeel ba kullu takbiratin bépp kabaar bu nekk ci julli ah ah lu dul ah sunnatu sunna la maa takbirati ihram da rek kabar almal moom doo moo siy faral kabaar yi def lépp ci sunna la ñu waaye nag ay sunnatu xafiifa la bala nga leen mën a si jootal nga si bàyyi ñett asaari si juróom benneel ba ina saa ba juróom ñeenteel ba al julusu mooy julusul awal mooy toogaay bu njëkk al julusul awal mooy toogaay bu njëkk fii ma ci julli boo xamante ne fii nii nekk na ci julli saani ñaari toog waaw julli boo xamante ne ñaari toogaay la am mooy julli ñeenti rakkaay ak ak timis mooy rakkaay ak timis waaw ak dee mooy jur yi nga xamante ne ñaari toogaay moo ci am toogaay bu digg ak toogaay bu mujj mais suba benn toogaay la souvent benn benn toogaay la waaw toogaay toogaay bu njëkk yi nag ci julli yi nga xamante ne ñaari toogaay la am toogaay boobu sunna la wa tashahudul awwal taaya bu njëkk tamit sunna la wa saani ak taaya bu ñaar bi tamit sunna la taaya bu njëkk sunna la taaya bu ñaar bi sunna la bil lafdi ci baat alwa ak bil lafdi lu waarid bi bil lafdi ci ay baat alwaarid yu rot fii ci moom nekkul nag loo neex ngay taaya dafa am ay baat yu root yoo xamante ne moom la ñu rotal ne koy taaya baat yooyu ngay taaya ndax lii bu nekk daam am na taaya booy taaya ñun nag suñu taaya ñu ngi ko jëlee ci Omar waaw Omar taaya bi taaya seen Omar la ñu ngi ko taaya ci kaw mimbar yoon ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne wayee moom at waxoo moom التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من هو التحيات ما هي باتو باتو سلي التحيات نيو يسلي لله أي سهل جل يالله الزك الزاكيات آه، جف يسلي لله أي سهل جل يالله الطيبات بعد التي لله أي سهل جل يالله الصلوات جل جروم لله أي سهل جل يالله السلام مجو ولا دم عليك يالا نكسي يو أيها النبي يو بلا ينتو ورحمة الله أيما يالا وبركاته البركة السلام جم علينا يالا نكسي يون وعلى عباد الله المولم جم يالا الصالحين يلي ويوم ashhadu maa ngi seede ni an laa ilaha amul benn buur bu ñu jaam ilallah budul yàlla wahdahu moom moom kot laa sharika déet benn xeet bokkaay lahu di ko yeen wa ashhadu maa ngi seede ni anna muhammad naka muhammad abduhu jaamam la wa rasuluhu te ndawam la moo ko yónni al aashiratu fukkeel ba ci sunna yi asalaatu mooy julli ala nabi chenente bi salallahu alayhi wa sallam fi tashahudil axir ci taay bu mujj bi taay bu mujj bi ginnaaw ba nga waxee ataxiyaat am jeex nga bëgg nga julli chenente bi waaw waaye moom soo ko xamul yonent bi nag julli bi salaat ibrahim bii la daa la daa la daa la daa ginnaawam taaya bii la bii la ci daa teg nga am allah allahuma yow yàlla salli yàlla nga dolli xewal ala mahamad si mahamad wa ala ali mahamad am nañu mahamad kama sallayta comme ni nga xewale woon wala comme ni nga jullee woon ala ibrahim si maam ibrahim ala ali ibrahim ak lañ ibrahim nga barik yàlla nga barkeel ala mahamad si mahamad wa ala ali mahamad ak lañ mahamad كما باركت كم من بارك على إبراهيم شما إبراهيم على آل إبراهيم أكنين إبراهيم في العالمين شميلفي إنك لك الحميد المطيب في يوم سنتنا مجيد التكبير fekkee nag su tarixa mi nag moom ah soo neexee nga jaam yi soo koy def sa sa sa man alxaajata achara fukk ak benneel bi soo neexee sax nga bañ ko jàng jàng sa fatixa doon wax la fatixa salaatu la boo xamante ne dafa mboolem salaatu yëpp doo duggaat si biiram soo ko jàngee mel nga jàng salaatu yëpp mën a xawlu sami allahu liman xamida may wax sami allahu liman xamida moom nag ci sunnatul mu akkat yi la bokk sami allahu liman xamida lil imam ne imam soo ko bàyyee da nga si jot wal fas yi ak kuy julli moom dong waaw fekkee da ngaa roy si imam ah doo ko wax imam may wax sami allahu liman xamida yow ma wax rabbana wa lakal xamd waaw imaam day wax sami allahu liman xamida imaam wax rabbana wa lakal xamd fekkee da nga julli yow doomu nag da nga koy wax ñaar yëpp ngay wax asaniyata achara fukk ak ñaareel ba wa salisata achara ak fukk ak ñetteel ba araddu mooy delloo alal imaam si imaam mooy delloo sëlmal alal imaam si imaam sunna la waraddu ak delloo ala man si ki nga xamante ne ala yasaahi nekk na sa côté càmmoñ arabiata achara fukk ak ñeenteel ba aljëhu mooy bilal bi tasimati taxlili si sëlmalu yeeweeku bi faqat dong sëlmal gi nga xamante moom ngay sëlmal sa côté ndeyjoor mooy sëlmal yeeweeku bi moom dong moom moo moom ngay biral mooy biral gi mooy sunna salaamaaleykum ay sëlmal gi ngay delloo imaam nag ak bi ngay delloo ko nekk sa côté càmmoñ ah biral ko biral ko nekkul sunna warul sax waaw alxamisa achara fukk ak juróomeel bi al insaatu mooy cellantu lil imaam ñeel imaam fii maa ci julli boo xamante ne yu jëxewu day biral fii ci moom julli boo xamante ne dañ koy biral comme gée ak timis ak suba loo bëgg nga bañ a jàng nga déglu la imaam li muy jàng settantal aay yi ah si xalaat ci xalaat aay yi imaam aay yi muy jàng nga settantal ko dégg nga jéem a xam li muy fii di ko di ko seetantal dégg nga ak saalisa achara këpp juróom-benneel ba ak ak sutura mooy saatir lil imaam ñeent imaam wal fajri ak kuy julli moom dong fekkee da ngay julli yow dong doo bëgg nga ut saatir teg ko sa kanam ba nga xamante ne kenn du romb sa kanam waaw soo ko deful nag ku romb sa kanam di nga si am bàkkaar moom tamit dina am bàkkaar mu ne waaye samu dina bàkkaarlu almaaru aju romb bay ne day musali diggante loxo aju julli waaw kiy julli ki nga xamante ne moo romb ci kanamam te am te te am tam am feneen fu mën a romb romb fa ñëw romb ci kanam kuy julli ma ne ko dina am bàkkaar waaw isa kaay dañ nekk ne la ko di ko ñel man du waxatul ak njëriñ mooy fekkee am na feneen fu mën a jaar dégg nga ak saabiata achara fukk ak juróom ñaareel ba azaidu mooy dolli alama ci li nga xamante ne yasau dina yasau dina dagan assalaamu sëlmal minal julu si saani si toogaay bu ñaareel tukkee si toogaay bu ñaareel waaw minal julu si saani si toogaay bu ñaareel waaw azaidu alama yasau السلامة من الجلوس الثاني آه. الأول في السؤال من الجلوس الثاني أو الأول في الصبح أو الجمعة من الثامنة جلوم يتلبى asaami achara fukk juróom-ñetteel bi azzayidu mooy dolli ala miqdaar yëpp kama xam ne si kim dal waaw ci noonu tamit bëgg leen tamit dal gi nga dolli nga nga nga fexe ba dal gi fekkee si julli suba la ah nga bëgg nga guddal rakkaa yi rukkoo yi si biir tamit nga guddal ko ba nga xamante ne kama ni na bi dina gën a gudd na fasul wa mustahabatu salaat léegi sànq da nga doon wax ku booy julli ma nit ki bu fekkee ne amul fu mu jàll mën na jàll mais bu fa la ñu tere mu jàll mooy fi muy sujjóot ak fi mu taxaw di nga waaw ko ñeenti sujjóot foofu la ñu dañu ko ko fa jàll xoolante ku jàll mais li ko paase la bu nekk mën na bu ko jàll tegulee saati sax mën nga fa jàll mën nga ko jàll waaw fi nga xamante ne su jotu fa fi mu taxaw ba fi mu si ba fi muy teg jëwam diggante boobu lañ bañ ko fa romb waaw su weesoo foofu nag soo neexee mu- même su ko tamit saati sax mën nga ko mën na romb fa romb
ba léegi waaw dégg nga.
mu ne wa mustahabaatu salaat yi ñu sopp si julli mu ne tazidu dina dolli ko ala salaasina fadlatin si fanweeri nga neel mu ne fanweeri nga neel yi sax ëpp na ko dama ko wax moom yi mu bëgg a lim waaye yi mu bëgg a lim nee na ëpp na ko al ula bi si njëkk qiraatul maamum mooy jàng maamum ma al imaam ànd ak imaam fi sirriyati si julli yàllu julli boo xamante ne dañ koy yàllu comme ci la tàkkusaan nga bëgg yow tamit nga jàng comme imaam li ñuy jàngee fekkee bi julli bi ñu biral la nag ñu nga bëgg nga kennantalu sa imaam li muy jàng nga koy settantal te bañ a ànd ak moom waaw ak saaniatu ñaareel ba raful yéri li muy yëkkati ñaar loxo inda shuruci fas xaraf fi takbirati ihraam si kabar almal faqat dong waaw kabar ama dong lan ne soo koy kabar da nga yëkkati si ñaar loxo ba mu tolloog si ñaar mbagg wala ba mu tolloog si ñaar si ñaar nopp nga ne allahu akbar waaw man yu xaar yi dina tolloog bii maa si ñoom ñaar man ki bay bii maa si ñoom ñaar man ki bay ñaari mbagg ya xaa ima tey ni ñu way jub wa tatwiilu qiyaat ak guddal jàng ci su- ci suba war duuri ak tisbaar tisbaar taksaan soo ko jul doo bëgg nga di nga jàng ay saar yu gudd suba ak tisbaar dama jub suba ak tisbaar soo koy jàng doo bëgg nga jàng ay saar yu gudd loolu tamit dañ ko sopp laakin waaye nag ci subaxi ci julli suba ak wala mooy gën a gudd waaye nag julli suba mooy moo war a gën a gudd ah, ah, saa yi say jàng moo war a gën a gudd yi ngay jàng ci tisbaar waaw waaye nag tisbaar tamit doo bëgg fa jàng saa yu gudd waaye yi nga jàng ci ci suba nag moo war a gën a gudd yi ngay jàng ci tisbaar mu ne wa taksiruha ak gàttal jàng ci la ak ci takkusaan wala maghrib ak timis waaw takkusaan timis tamit doo bëgg soo ko julli nga seet ay saa yu gàtt nga jàng ko wa tawassutuha ak dig wa tawassutuhu wa tawassutuha ak dig doomal jàng fi la isha yi si génn ni ki doon gée tamit nga seet saa yu digg doomu nga jàng ko wala ay wala nga seet ay ay yu digg doomu nga jàng ko waaw wa taqsiru rakaati thaniya ak gàttal raka bu ñaareel bi am wala ci bu njëkk bi ni ki noonu raka bu ñaareel bi li nga koy jàng moo moo moo war a gën a gàtt ah li nga jàng ci raka bu gudd bi ci raka bu njëkk bi. bayka